oui chéri. yaa ngi toog. maa ngi toog de. waaw il est l'heure ah. donc xaaral ma woo maman toogal. maman. est bi. teg dara maman xanaa taay da nga am far bu bees. am téléphone bi ah. taay da am téléphone bu seer. Ah, liggéey daa wóor nag. Hmm. ba tax na. ma ko suuluwee sama copain ya bu bees bi moo <laughs> ah, ah da nga <laughs> dañuy naxee hmm. ah dama lay wax rek buñ la gisee nga jongo ma mel ni mel di la cokkaas <laughs> mën ngaa gérer nag mais na nga xam Oke. ngay yem de. ok d' accord. Ah. ok. mais nag euh, mana nga lu ma bëgg mm. demfi génn nii man ak madame. Euh, dañu dem ko yow ci nga ñëw dem marché poisson euh, ndugg fa ndugg une semaine lii cinquante mille la. Hmm? donc nga jéem a gérer ndugg une semaine dina baax. waaw voilà surtout moo amee coof bi tamit da siy baax xam nga bu ñu jullee pare jëndu am. Hmm. ndax yebooy ma rek bu niin bi. sëdd sax dinaa ko siy dugal. ah moom nag nante la nag. <laughs> patron xam nga ne nga yëkkati xaalis bi toll nii jox ma wóolu marek. rek. donc da ngay gaaw li ngay def balaa ñuy ñëwaat dégg nga. waaw ok ok ci kanam. ok waaw nekk léegi léegi dégg nga. merci beaucoup waaw. après nga tëj buntu kër kan hmm, hmm. ya, ya, ah, bi. waaw. te moom da ngaa jongal man patron bu jigéen bu màggee comme moom laa bëgg a mel. te na naa kañ kër baadoo lay de ñëw de yebooy guddi yebooy bëccëg waa cinquante mille tamit bariwul ci ay jën xanaa sax kii bii lii boo ko jëndee jën man de laal na def li ngay jënd jël dañoo jup ci événement ci dess ma dem jënd sama jasneer bu baax yóbbu ko ci ca tëyër patron yi dal jaaxal nañ wa 50000 ci jënd kessé jën nga xamante du def dara du jox la ndoxum ci ti rek ah. ni def na. oui ngi fi. alhamdulilah. ça va. super super ba sonn si yoon bi. non sonn ma alhamdulilah. dama doon waaj a dem marché poisson nii jënd ay jën. ci yoon bi sax nga ma fekk ne may dem. waaye nu ma la woowee rek nga ne yaa ngi ñëw rek ma toog. nga jën yi may dem jëndi pour néew di doole yi la. te koñ bi dafa bëri ay néew di doole. damay indi ay keesu jën di leen ko partager di leen ko jox ñuy dimbale seen bopp. xam nga ñoom ay yeboo la ñuy dundee te yeboo de indi ndoxum siti ak mm. robat fi mu ne nii wokkatu nañ wokkatu nañ ba nit ñi dañoo mujjee jël seen kër gi def ko ay karo ndax miir yëpp jëm na ba jeex pa boo ci gis mu nga wéeru ca miir yi yi ñoom ñëpp waaw tamit loolu baaxul mm. ba tax na moo dem di bëggoo leen jëndal ay sëdd di leen ko jox ñuy ñuy dund fi mu ne nii dëkk bi amatul miiru wis ah wis amatu fi mm. te ngay dox kër yi bari soog gis karo la nañ sukran alhamdulillah alhamdulillah da ko def lu bax dang ci ga sukran alhamdulillah wa ñun sax ci lool la ñuy parce que ndimbal mom li di social ñu ci way def yalla moom mo koy fayal bopam wa nit ndep loo mëna def di dimbali nit ñi bu ko xel yokal té ñun ñi sax ci loolu ñuy dox waaw ñun ay saoudien lañu parce que réew bu nekk dañ ciy tànn ay nit man nag fii Sénégal man la ñuy tànn waa Arabie Saoudite man lañu ñuy tànn pour bu ñu amee ay aide yu ñuy joxe ñu wóolu ma mu ñëw ñu jox ma pour ma koy tasaare ci dëkk bi. xeer la wala xaalis la. xaalis la te vraiment bi ma gisee ñu daje keroog ci mbedd mi gis na nga yiiw nga respecté say cieur vraiment ñun ci lool la ñuy dox ma nak bala may dem fenn damay njëkkee ci yow wa nga wax ma nak ñaata nit ñu yéwo ci kër gi ba paré tamit ci dëkkandoo yi fi fekkee xam nga nu ñu toll aussi nga wax mo ñu am lu leen baxé yow sama kër gi sha allah man kañ wa koñ bi lay dimbali te man xam nga sa yu ma xeyé social lay dox suma yéwo ci si dox kër gi dugg beeg génn bi mënuma la koo wax waaw man ci kaw laay nekk gardien bi mooy nekk ci suuf waaye ku indi sa lettre rek damay ñëw rek jox la li ma la war a jox waaye yow danga may wax somme bi nga war a joxe ñaata lay tool eh, bëri na bëriwaay boo xamante ni amul xayma noo wax nii la tool waaw liquide bi moo gën sax. léegi balaa ñuy commencé comme dama doxee naaj dama xaw a mar bëggoon nga may ma tuuti ndox bu fekkee ndox zam-zam am na fii. ndoxu sax laay naan. dama ko commandé woon Màkka mais daa war a jaar France soog a ñëw fii nii waaw léegi xaama dem may la ndox bu desee ma xool desul nag ma may la ci beneen ndox mi loo ferees waaw rek incha allah incha kii fii Sow Dieng bi toroxal na ma fii laa doon léegi saucisse yoo fromage yére yéen yëpp fii. waaw maman lan la. lu xew. dara. nga mel ni ku doon jooy nii. waaw. yow robe bu mère Khady Wade jox bu mu jógee Gàmbi Màkka moom nga sol ni dama doon tang da ngay na yak fi ngeen demo léegi nak may julli rek. sama jàllabe may julli rek cambrioleurs yi dugg si. cambrioleurs cambrioleurs yi ñoo ñëwoon fii cambrer kii bi yëpp. ñu dem fekk fii cinquante mille yi ak téléphone bi daal di koy jël. xaalis ban. mooy yi nga ma joxoon pour ma dem kenn di jël. cambrioleurs bu ñu fi duggee dinañ fi gis télé yeeg lépp nekk fi ñu jël xaalis di ko yóbbu. ñoom damaa dégg sax seen bi di wax ñu naan dañoo jub si événement téléphone bi dama ko suuluwee woon. patron doo len wax dara patron waxul len dara français daal am mo bu muy ki dal dama mënul wax mo bi rek way tek dina wax lepp tamit patron roma saga ba nga dóor ma ma ma jël hmm patron bu jigéen ah baax nag doole na dooma